ñi ñuy wax euh, investisseur nga xam day jël seen alal di ko indi ci réew mi ak euh, ñi ngay wax ay touriste nga xamante ni bilee dematuñu ci réew yi nga xam dafa am lu mel ni jihadisme ñuy ñëw ci réew mi te loolu day dugal alal ci réew mi day soxal réew mi euh, te it wax na dëgg il faut ñu ci ci ci réew mi ñu bàyyi yenn façon waxtaan yi lépp lu jëm ci wàllu xaajale bu mën a doon ci wàllu diine ci wàllu aada ci wàllu xeet ñu xam ne li am solo rek mooy li ñuy wax citoyen waaw ah, ba tax na dañu mës a wax ni gis nga euh, constitution bi sax euh, jàmm réew mi ak sécurité réew mi moo ko ëpp doole parce que bu fekkente ne bi amoo jàmm amoo kaaraange li wértu woo dootoo am constitution dootoo am réew ndax réew yi nga xamante ni bi Euh, guerre dafa dugg mais waxtu affaire constitution affaire jàmm rek la wax. ginnaaw loolu aussi euh, Macky 2012 di rafetlu bu baax a baax di gërëm aussi le président Macky Sall ci li nga xam ni euh, moom la ñu déglu dégguñu ndax dañoo waxoon ni solution wu ñàkk xëyu ndaw yi taxaw ndaw bi taxawaale bi ñu taxawaalu seen solution bi mooy ñu def recrutement massif te tey wax dëgg yàlla décidé na. Euh, recruter 65 euh, 000 jeunes euh, te loolu xam nga lu lu bari la ci ay junni ba tax doo doo juróomi ci ay jàngalekat loolu mu nekk lu ñuy lu ñuy rafetlu di gouver aussi gouvernement bi comme président jël na décision bi mois de mai ñu fexe ba app ap bi mu jàpp ñu def recrutement xale yooyu ginnaaw loolu aussi ci wàllu financement yi nga xam ni décidé na ko jar ay milliards def ko ci financement yi ñuy wax ni euh, financement yi yàgg nañ ko def waaye souvent da dul dox euh, te it li ko waral mooy dañoo jàpp ni li ñuy wax transparence ak euh, justice ak équité maanaam ci biir séddale financement yi ñu fexe ba ñu def yamale ñu fexe ñu fexe ba c'est leer lolou dafa donc kon financement est président di joxé fexé ba buñ ci sét opposant buñ ci sét euh, tidiane wala buñ ci ñi nga euh, aussi chef de l'État ndax gëj euh, coalition 2012 recevoir une délégation de la coalition donte le bureau Macky 2000 lay lay doon mu recevoir leen ndax am na ay waxtaan yoo xam ni ci wàllu xelal euh, ci wàllu digal ci wàllu information mënuñu di ko wax euh, publiquement mu mënuñu di ko wax donc ci ci ci ci béykat bi donc il faut ñu toog ñu waxtaanee ko ndax it nag dafa jot président Macky Sall waxtaan ak ñi nga xam ni ñoom lañ njëkkaloon a àndal ndax ñooñu daañu ko wax dëgg-dëgg lan moo xew ci réew mi. lan la ci lan lañu jàpp moom la ci war a def ak loolu lan la ci war a dindi ndax crise bi ñu génn dafa laaj ay ay décision yoo xamante ne bile dafay nekk ay décision yu bees yu yu am solo